laa dugal aljana waaye àgg ca yàlla nawaafilul xayraat moo la ca yóbbu nawaafilul xayraat nag dafa yaatu mooy lépp loo xam ne seet nga ko ci sa teeyu bakkan muy njëriñ nga defal ko doomu aadama ci ñu yow loolu mooy yóbbu nit yàlla yaatu na nag waaw bi ci gën a néew doole ñu di ko tudd mooy nga fekk léegi pàkk ci yoon mu wóor la ne lii nekk na loo xam ne doomu adama mun na fee jaar mu gaañ ko nga randal ko ci nawaafilul xayraat la bokk kon moom li muy def ak ñi mel ni ñoom li ñuy def jaamu yàlla féetewu ko kaw kon ñu ngi ko ci encouragé bu baax a baax a baax ndax it xëy na moo génne burda bi waaye man dama bind beneen livre boo xam ne pare na jox naa ko teg si bi te maa ngi ko def ci Cheikhouna Tidiane bi parce que Tidiane la Cheikh na Tidiane mooy sama yaakaar mooy sama sëriñ ma bind ci moom bind ci tarixa bi livre bi jox naa ko ko mu ngi nekk en édition bi ci desit moo ngi maa ngi beneen troisième livre boo xam ne maa ngi koy bind boobu dama ciy wax jaar-jaar yi ki nga xam ne moo ñu meññ muy sunu maam alxaaji Abdul Hamid Kan ndax dañu travestir lu bari ci jaar-jaaram moom góor gi ñi ko xam ci Sénégal boo waxee dañu naan Alxaaji Abdou Karim Kane bi guerre bi tàngee moom demoon ca euh, Màkka ñaan ger bi jeex loolu yëpp dëgg la Alxaaji Abdou Hamid Kane moo posé woon première pierre la grande mosquée de Paris loolu yëpp dëgg la mais li ëpp doon doole ci dundam nit ñi xamuñu ko ndax moom yàgg ci à l'époque li mu voyagé dem Paris dafa bari dem France parce que 1916 la jëkk dem Paris boobu dafa fekk benn incident diplomatique bu am entre l'Arabie saoudite et la France ba ñu bloqué les pèlerins yi nga xam ne ñooy quitter le territoire français pour dem def seen aj Makka bloqué leen ay at yoo xam ne benn pèlerin demul incident boobu alxaaji Abdou Hamid Kane moo ko réglé ci la dellu see Paris ñu takkal ko Légion d'honneur li ñu traversir li ñu traversir ci dundam ci jaar-jaaram dafa bari en tant qu'artisan de la paix mondial ndax mystiquement moo ñaan guerre bi jeex dama leen di laaj est-ce que kooku war nañu bind histoire générale du Sénégal te boole wuñ ko ci et pourtant bill boole wuñ ko ci moo tax ñu ñu jël suñu responsabilité dinañ ko bind publier ko teg ko ci loxo euh, euh, seen Thierno Seydou Nourou Ndiaye yemuñu ci boobu maa ngi koy wax démb Kaolack balaa julli juma ajjuma laa fa démb laa fa jóge mais ak fa falaa julli juma ndax dama gis ne niveau imam yi ci Sénégal dafa tuuti dafa baax am na imam yoo xam ne biñ leen falee imam seen imaama yëpp ba bi ñuy faatu ajjuma bu jot dañuy ñëw téye xutba boo xam ne Cheikh Seydi moo ko defoon c'est bien beau mais mais mais mais mais ça relève pas les les questions d'actualité xutba liñ ci bëgg ci jumaa mooy nga wax loo xam ne c'est actuel loolu moo tax j'ai rédigé plus de deux cent deux cents xutba en amul benn sujet d'actualité boo xam ne dafa binduma ci xutba tey incha allah bu ma paree ci yii dinaa ko ko jox moom i tamit moom moo koy édité ah li nu war a wax bari mais xat na xam naa professeur bi mi ngi may ñaax mi ngi bind di teg rek <laughs> ndax i tamit euh, dañu yéex a commencé euh, professeur bi mi ngi ma koy wax léegi neen ma yéen imam yi war ngeen di di di di di toujours di xutba ci naka la ñuy war a rationaliser le temps waaw c'est très important alors temps dafa am solo xam nga fii mooy espace bi ñu ne la terre ak lu ko wër yépp ñaar moo fi am yàlla tënk ko ci suñu dund muy az-zamaan wal makaan fa nu nekkoon ba ñuy daat ñëw fii zamaan ak makaan amu fa mais fii zamaan dafi am makaan dafi am kon na ku fi nekk li zamaan laaj danga koy def li makaan laaj da nga koy def kon fa tabaarakallaahu nee na may lim ma mayoon yokk naa ci juróomi minute kon <laughs> kon nag comme sàcc daganul te déjà sàcc naa ko juróomi minute dama koy delloo micro rek ñu continuer liggéey bi ba beneen yoon asalaamaaleykum wa rahmatullah